asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci de Sport 221 tey di lundi 22 avril 2024 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi tàmbale ko kayiti xibaar bii di stade quotidien Idrissa Gana Gueye la ñuy fekk ci premier passe bi moom mi nga xam ne bitaar la niki démb ci match bi nga xam ne Everton amoon nañu ko digganteem ak Nottingham Forest dal di koy dóor ñaari bal ci dara Gana Gueye nag dal di marqué bit bi njëkk ci match boobule Everton kon daal dina am benn tànk ngir rëcc ci li nga xamante ne mooy relegation zone bi gannaaw bi nga xamee ne dafay xeex ngir bañ a wàcc voilà ni ki deemu ndam loolu ñu am tànku gànna gi génn ci ndax moo dugal bit bi njëkk ci match boobule Moussa Niakhaté nag moom titulaire la woon ci côté ñi di waa Nottingham Forest gannaaw ay semaine yi semaine géej na football ak équipe boobule waaye démb moom titulaire la woon moom kii di Moussa Niakhaté Krépin Diatta itam daal dinay teew ci premier passe kayiti xibaar bi moom nag dafa def passe ni ki démb ci match bi nga xam ne AS Monaco doon na am digganteem ak Brest la woon mu dal di dóor ñii di waa Brest waaye nag ki nga xamante ne mooy Krépin Diatta doon joué comme excentré gauche mu nekk lu mu gëj a football nag ndem mos na ko football sax ci club boobule. démb nag dafa titulaire joué match yi ba mu jeex ki nga xamante ne mooy Jacobs xam ngeen ne moom dafa am gaañu gaañu moom saison sax jeex na waaye Krépin Diatta moom joué na match boobule. Nicolas Jackson moom itam fàtteeguñu ay mbiram journal bi dellu na si ci jamono bi mu ngi koy défendre nga xamee ne gis nañu ne kat fan yile coow dal dina koy topp ci réseaux sociaux yi gannaaw bi nga xamee ne kat dafa doon raté raté gu jéggi dayo ci match bi doon dox diggante ñi di waa Chelsea football club ak Manchester City. ci demi-finale FA Cup la woon moom nag mu nekk fa di ñàkk ay occasion yu ama am solo waaye nag jamono bi nee na Chelsea ñoo ngi koy défendre Real Madrid moo mujjee am ndam ci El Clasico bi doon dox digganteem ak Barcelone. mu ñeel liga bu Espagne waaye nag ñu gis ne jamono bii loolu daf ko may mu am fukki poñ ak benn ca kanamu Barcelone gannaaw bi ma ko dóoree niki dem mu ñetti bal ci ñaar deux partout la dem ci biir match bi ba ci li nga xam ne mooy temps additionnel bi comme Real Madrid équipe la boo xam ne moom dernière minute da koo mën ki nga xamante ni mooy Jude Bellingham moo marqué but bi nga xamante ni leen jox ndam ci li nga xamante ni mooy temps additionnel bi. Inter de Milan mën na nekk champion d'Italie tey jii bu fekkente ne am na ndam ci kaw dëkkandoom bi nga xam ne mooy AC Milan. mën na nekk tey jii li nga xam ne mooy champion ci Serie A bu Italie gannaaw bi ma ko nekkee woon bu yàggul dara rek ni ki daw jéeg France nag gis nañu ne Habib Beye moom daal dinay fekk ji Omar Daf ci li nga xamante ni mooy deuxième division muy Ligue 2 française gannaaw bi nga xamee ne kat gars yi mënatuñu ko jot ci li nga xam ne mooy national 1 moom mooy jiitu lu bëree bëri ñor bi nga xam ne moo topp ci ginnaawam kon déwén moom Habib Beye ca Ligue ba lay amalee li nga xamante ni mooy ay jonganteem ak ñi di waa Red Star journal bi yemul ci mu ngi xam ne ne ñoom ñaar ñi ñëpp muy Habib Beye ak Omar Daf ay alternative lañu ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal. buñ jëlee journal bi nga xamante ni mooy stade moom dafa dellusiwaat ci Nicolas Jackson bi nga xamante ni kat fan yi coow da koo topp. gannaaw rati gu métti gi nga xam ne dal na ko ci match yi nga xamante ne Chelsea football club doon na ko am digganteem ak Manchester City. moo tax jamono bi daal war na xoolaat ay mbiram gannaaw bi nga xamee ne kat fan yi moom lu mu ngi koy dégg te moo ko yóbbee boppam lii yëpp mu ngi ko dal ci match boobu doon dox diggante Chelsea Football Club ak Manchester City Manchester United nag moo war a dajeek City ci li nga xamante ne mooy finaalu FA Cup boobule gannaaw bi mu dóoree ñi nga xamante ñoo di waa Coventry ni démb journal bi dellu siwaat ba tey ci Idrissa Gana Gueye bi nga xam ne moom ni ki démb retour def ci li nga xamante ne mooy 11 Everton bi ba noppi dal di leen jox ndam ndax dafa dugal benn bit ci li nga xamante ni mooy boobu boobulee El Clasico bi itam kayiti xibaar bi di stade dellu siwaat na ci gannaaw bi nga xamee ne Jude Bellingham moo dal di jox ndam Real Madrid bit bi mujj ci match boobu moo ko dugal fi mu ne mel na ni li des ngir ñu gagné li nga xamante ne mooy championnat boobu bareetul ndax fukki poñ ak benn dox na digganteem ak deuxième bu ñu jógee foofu danañu dem Angleterre Miro Sport moom nag dafa dal di ñëw ci li nga xam ne moo jote xew ni ki démb muy match bi doon dox diggante Manchester United ak ñi waa Coventry muy match bu doy waar boo xam ne day Man United daanaka xaw na ko ñàkk gannaaw bi mu jitoo woon ñetti bal ci dara ba ci soixante-dixième minute soixante-onzième minute ñi nga xamante ne waa Coventry xam ne mooy ñaar fukki simili yi des ci jogante gi quatre-vingt-quinzième ci temps additionnel bi ñu dal di marqué beneen but ñu dal di dem ci li nga xamante ne mooy prolongation yi wala boog tiro but ya foofu waa Manchester ñoom mujjee jàll ba tey ñu ngi jooy di xam ne ne kat dañu leen sàcc ndax match démb bi kat li nga xamante ne mooy arbitrage bi baaxul pour ñoom daal li nga xamante ne mooy VAR bi bokk na ci li nga xam ne moo leen rey ba tax Manchester United daal di jàll ci seen kanam Eric Ten Hag nag daal dinay xam ne ñoom amuñu benn gàcce boo xamante ne fi ne mën nañu ko wax ndax coono bi ñu daj démb jàppul ne maanaam loolu gàcce la pour Manchester li ëppoon solo mooy ñu am ndam te ndam loolu am nañu ko jamono bi ñooy joué ci li nga xamante ne mooy finaalu FA Cup boobu te war a dox seen digganteeg Manchester City ba tey foofu la ci Angleterre coowal arbitre moom mel ne ni bari na fa lool ndax ki nga xamante ne mooy Nuno Espirito Santo bi tàggat équipe bi di Nottingham Forest moom itam mu ngi ñaxtu ci wàllum arbitrage bu bon bi nga xam ne ni ki démb jàngat na ko nee na ci match bi doon dox diggante Nottingham Forest ak Everton pour moom daal dañu leen sàcc VAR bi daf leen sàcc voilà te moom li mu gis sax mooy ki nga xamante ni moo nekkoon ci VAR ba kooku fan su ñi di waa Luton Town te Luton Town dafay xeex ngir bañ comme ni ko Nottingham Forest di defee moo tax mu jàpp ne kan kooku day jàppal tànk ñi di waa Luton Town ngir ñu bañ wàcc su ko defee nag ñoom ñi di waa Nottingham Forest ñoom la mbir mi di dal ci seen kaw moo tax ne la daal li nga xam ne mooy arbitrage su démb ki nga xam ne moo nekkoon ci VAR bi ñoom ñaxtu woon nañu bañ kooku ñu daal di ko fay teg ndax ñoom xamoon nañu ne kooku fan su Luton Town jàppal tànk Everton ni démb mu daal di am ndam ci seen kaw voilà ñoom waa Nottingham Forest ñooy daal di ñaxtu lu nu mel kon mu mel ni coowal arbitre moom ni démb bari na lool waaye itam kayiti xibaar bi ñëw na ci ki nga xamante ne mooy Trent Alexander-Arnold bi nga xam ne ni ki démb dafa dellusiwaat li nga xamante ne mooy benn coup franc direct moom mi nga xam ne dafa jóge ci blessure bu yàggul dara Liverpool nag moom mujj am ndam ci match boobu mu doon am digganteem ak Fulham fi mu ne nii nag moom ak ñi di waa Arsenal ñoo tolloo ay poñ nekk ci li nga xam ne mooy bopp classement bi jiitoo Manchester City benn poñ Man City nag war a joué ci fan yi la ab match boo xam ne gars yi dañu ko ko jiitoo bu ñu jógee foofu nag dañuy dem France jël kayiti xibaar bi di l'équipe moom dafa dal di ñëw ci match bi doon dox diggante Paris Saint-Germain ak Olympique Lyon niki démb Paris nag moo ca mujjee am ndam ñeent bal ci benn mu ne nag victoire bu xawoon yomb la ci ñoom ndax Paris moo ëpp doole ñi di waa Olympique Lyon fi ne nii nag yombal na seen wu yoon ndax jege nañu lool ngir nekk champion foofu la nga xam ne mooy ca Ligue 1 te loolu nag mën na xew nee na ci àllarba ji mu ne àllarba jii rek lépp mën na leer ci kanamu ñi di waa Paris saint maanaam mën nañu nekk li nga xam ne mooy champion foofu la ci France ci muy fukkeel bi yoon ak ñaar ci seen histoire. Monaco nag ni ki démb moom moo daal di daaneel ñii di waa bi nga xam ne moom bi tàmbalee saison ba léegi dafa jaaxaloon ñu bari ni mu def ba nekk ci li nga xamante ne mooy deuxième place ci Ligue 1 française waaye jamono bi mel na ne mu ngi daj ndax Monaco de ni ki démb moo ko daal di duma. ci ndam loolu nga xam ne daal dina koy am ci kawam te ñu leen di wax léegi ne Krépin Diatta passeur décisif la ci jogante googulee noonu la ñuy daal di jógee rek wuutali Espagne jël kayit xibaar bii di marka bi nga xam ne moom dafa dellu si ci El Clasico bi nga xam ne doon na dox diggante Real Madrid ak FC Barcelone ca Santiago Bernabéu nee na nag ñi di waa Real Madrid ñoo ca mujj am ndam muy match boo xam ne mën nañu wax ne daanaka final la woon Jude Bellingham mooy ki nga xam ne moo daan daal di jox ndam ci li nga xam ne mooy minutes yu mujj yi nee na fukki poñ ak benn jamono bi ñii di waa Real Madrid jiitoon nañu ko ñii di waa Barcelone Lucas Vazquez nag ku ñu ràññale ci match bi markaay wax nee na moo dal di indi li nga xam ne mooy penalty bi ba noppi def li nga xamante ne mooy passe décisif waaye itam dal di marqué benn bit ci jongante googulee nee na nag Xavi Hernandez dal dinay ñaxtu bi jongante gi jeexee di xam ne daal li nga xam ne moo aju ci bit bi nga xam ne ñoom joxuñu leen ko métti na ko lool te nag yëpp li ko indi mooy ñàkkum li nga xamante ne mooy goal line technologie bi nga xamante ni foofu la ca La Liga bu Espagne jëfandikoo wuñ ko moo tax saafi ne loolu gàcce bu rëy la maanaam daal fi mu ne nii war nañu weesu li nga xamante ne mooy état boobu maanaam bii dugg daal ñu naan dugg naan duggul moom war nañu ko weesu te lii yëpp dara indiwu ko lu dul ñàkk jëfandikoo li nga xamante ne moom la ñuy wax gold line technologie lii kàddu la yoo xam ne mu ngi dal di jóge ci Xavi Hernandez buñ jógee ci kayiti xibaar bi di Marca dañuy jël as moom itam ci match boobu la dal di dellu si mu ngi xam ne ne kii di Jude Bellingham moo marqué bit bi mujj ci match bi dal di jox Real Madrid bi waaye nag ki nga xamante ni moom la ñuy wax Lamine Yamal kenn du moom ni ki démb wane na xarañte lool ci li nga xam ne mooy match boobule ak li nga xamante ni daal dina koy indi ni débat ah muy bal boobu nga xam ne daal dina koy dugal ñi naan dugg na ñi naan duggut lii yëpp nag li ko indi bokk ci li nga xamante ne mooy ñàkkum goal line technologie waaye nag ki nga xamante ne mooy Lucas Vazquez moom itam marqué ab bit ba noppi def li nga xamante ne mooy passe décisif Xavi Hernandez dal di dégg maam dal ci kaw arbitre yi jàpp ne sàkk woon nañu ci ki nga xamante ne mooy arbitre bi ngir mu dem saytu li nga xamante ne mooy baax a baax waaye nag dafa dal di lànk mën a lii yëpp nekk loo xamante ne jamono bi dal nañ koy jàngat ci jongante googule moom Safi Hernandez dal dinay wax li nga xamante ne moo ko métti yëpp ndax nee na daal nga xam ne mooy manqué lii di goal line ak arbitre bi xamante ne xëy na jëlul matukaayam ci saytu gi nga xamante ne moo war dëgg ngir leeral li nga xamante ne moo aj ci biit le nekk na loo xam ne métti na ko loolu yëpp dal dina koy gaaral ci kayiti xibaar bii di as naka noonu kayiti xibaar bii di sport moom itam dal di ñëw ci loolu mu xam ne daal fi mu nii lépp jar fi jaari tàbbi géej mu ne lépp jeex na te lii yëpp mu ngi jaaree ci match boo xamante ni kat ñii di waa Barcelone ñu ngi leen xeeñ bit boo xamante dugg na ndax nee na kat bal boobu nga xamante ni fi mu ne nii ñu ngi ko xeeñ ñii di waa Barcelone leer na ne dugg na ci kangu ki nga xamante ne mooy André Lonin waaye daal ki nga xamante ne mooy arbitre bi daal dafa daal di lànk ne bal bi duggut loolu yemu ci mu daal di jox li nga xamante ne mooy penalty Real Madrid muy penalty boo xamante ni am nañ ci sikk sàkk maanaam na ci lii nag lekk loo xamante ni kayiti xibaar bi di sport moo ko daal di Xavi Hernandez ba tey ci kayiti xibaar bi di sport muy xam ne ne kat ni ki démb moom li nga xamante ne mooy défense su Barcelone bi taxawaay bi mu waroon am amu ko dal dinay bu baax a baax li nga xamante ne mooy wàllum défense bi ci taxawaay bi ñu waroon am waaye loolu yemu ci dal dinay wax na tam ki nga xamante ni voilà mooy arbitre bi ak li nga xamante ne mooy ñàkkum goal line technologie bi bokk na ci li nga xam ne moo rey Barcelone te jamono nag weesu na foofu maanaam war nañu weesu daal foo xam ne dañuy joué te li nga xamante ne mooy goal line technologie utilisé wuñ ko moom Xavi Hernandez lii yëpp dal dina koy bécc kayiti xibaar bii di Mundo Deportivo mom itam ci loolu la dal di ñëw mu ne daal niki dem moom Barça dañ ko xeñ li nga xamante ne mooy ab bitam rek waaye ñëpp xam nañu ne bal bi dugg na waaye daal ki nga xam ne mooy arbitre bi mooy yàq lépp fi mu kon mel na ni ñii di waa Real Madrid daanaka gagné nañu li nga xam ne mooy championnat bi gannaaw erreur ak i toj toj yi nga xamante ni arbitre bi dal dina koy def ki démb ci jogante googule waaye ki nga xamante ni tam moom la ñuy wax Marc andre ter Stegen bi nga xamante ne mooy gardien Barcelone moom tam dafa jàpp ne ki démb li ñu gis gàcce bu rëy la ndax bit bi xeñ nañ leen ko daal moom dafa jàpp ne loolu moom bit la waaye kayiti xibaar bi yemu ci mu ngi xam ne daal ni ki démb moom ak càcc dëgg moo xew foofu la bi Bernabeu ndax kat bit bi xeñ nañu leen ko loolu yemu ci ñu daal di joxe penalty boo xamante ni jur na coow maanaam leerul loolu tam Mundo Deportivo daal dina ko indi kon sport ak Mundo Deportivo yëpp dañu jàpp ne daal arbitre bi démb moo xeeñ victoire ñi di waa Barcelone wala bokk moo leen xeeñ seen bit boobule te it li nga xam ne mooy penalty bi dañoo jàpp ne maanaam leerul maanaam càcc daal la jàpp ne moom la arbitre bi daal di def ni ki ca classico boobu nga xam ne kon doon na dox ci diggante ñaari équipe yooyu lay bu ñu jógee foofu nag Italie la ñu dal di wutale kii xibaar bi di Corriere dello Sport moom nag dafa dal ñëw ci match bi nga xam ne war na dox ci diggante AC ak Inter de Milan di tey ji ci Serie A bu Italie Inter de Milan nag li leen tax a jog du lenn lu dul célébrer li nga xamante mooy seen champion maanaam gagné championnat bi tey tey jii loolu la ñu bëgg ci bi AC Milan nag li ñu bëgg mooy dal di leen koy xeeñ maanaam bëgguñu daal ñi nga xamat ñoo di waa Inter de dal di koy defee ci seen kanam dañu dem feneen defee ji ko fa mais tey ji ñoom du ñu leen may loolu moo tax match lay doon boo xam ne derby la ci biir derby yi donte ne yàgg na metti loolu tax xañ na sax Inter de Milan at yi weesu moo doon bëri li mu ciy am ndam waaye tey ji AC Milan pare nañoo takku ba dëgër taxaw ne Inter de daal du ñu am ndam foofu la ci seen kanam ne dañ fay feetee li nga xam ne mooy seen victoire rawatina li nga xam ne mooy championnat bi ñoom loolu duñu leen ko may moo tax ne ki nga xamante moy Lautaro Martinez mom préparer na show bi de mom fimni ni mom parti bi mom dal dina koy bu nuppi way ki nga xamante mom moom wax Rafael Leao limu mu moy dal di koy toxal ba benen jamono manam dal duñu ko def tay mais nañu dem fenen ak benen jamono ñu defee ko fa loolu moy li nga xam moy derby bi ñuy xaar tay ji fofu la ci Italie manam Serie A bi ci digënté AC Milan ak Inter de Milan waye du loolu rek ndax amna benen match bo xamne momi tam ñong koy xaar tay ji mu ngi wara dox digënté AS Roma ak yi nga xamante ñoo Bologna mooy match boo xam ne kon diggante Dorosi lay doon a kii di Thiago Motta nga xam ne ñaari joueur lañu bi ñu bàyyee football yàggul waaye ku ne ci ñoom yaa ngi def jaloore moom kii di dégg nga maam Thiago Motta mooy yor équipe bi di Bologna am équipe yu bari yu koy topp moom sax xamal na leen ne saison bi bu jeexee moom dafay dem ñii di waa AC Milan ko bëggoon a dégg maam jël mu dal di wuutu Pioli foofule waaye nag Juventus mooy équipe bi nga xam ne jamono bi daanaka moom moo ci jiitu ngir daal di koy tabb mu jiite équipe boobule loo ci mën a dégg mu ngi def jaloore ak Bologna kayit xibaar bi mu ngi xam ne ne AS Roma ak jamono bi ñoom waa Bologna ñu war a taje tey jii si ngoon waaye ku ci nekk ci ñoom ñaar daal point ya nga xam ne moom nga cee jëlee mën na la yóbbu fu sore sori rawatina li nga xam ne mooy Europe nga xamante ni ñaari équipe yi ku ci nekk fi mu ni la ngay xeex mooy daal di dem ci Europe ndax bu ñu xoolee Bologna fi mu ne ci quatrième place la dal di nekk muy jiitu AS Roma bu fi championnat bi yemoon tey ji moom dafay dem ci Ligue des champions ba AS Roma moom itam di xeex ngir dugg ci li nga xam ne mooy top 4 ngir déwén mu mën a qualifié dem ci Ligue des champions bi ne na képp koo xam ne point lay am solo lay doon Bologna ñu ngi ci 59 points ñii di waa AS Roma nekk ci li nga xamante ni mooy 55 points ak benn gémin han jongante gu am solo ba mu tam lay doon ndax daanaka mën nañu wax final la kon loolu yëpp ñu ngi koy xaar tey ci Serie A bu Italie moo ngi noonu gars lii mooy li ñu gënoon mën a jàpp kon ci kayiti xibaar di leen wax ngeen woy di topp Sen Sports 221